نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني هذه سنتي فرضا لله تعالى mbokk yi asalaamaaleykum am nañu mbégte lool ak kontante ñëw jàkkaarloog jëmm ju sell ji nga xam ne tubaarkàlla ñëw nañ fi ñëwati fi waaye saa yu ñëwee rek bànneex la ñuy ñibbee moom lañ seet si tey pour waxtaan ak moom ci lu baree bari waaye nag tey moom dañ koy tënk rek ci wàllu faj sëriñ Serigne Lému Ndiaye Chahibul euh, Asraar ñu ngi lay nii bu baax sang bi. waaw salaamaaleykum Alburax maa ngi lay fay. jërëjëf. Eh, di la jox sa wàccuwaay. Mhm. yaa ngi sëñ àndal. Mhm. ñu mi. yàggal fi suñu kilifa diine yi. ci daraja yi Seydina Mohamed. di ñaan yàlla yàlla na yàlla dolli jàmm ci Sénégal ak li ko wër. amiin mhm. Cheikh Abdoul Asad njëkk a ñu xam mooy lan. waaw euh, Alburax. Cheikh mhm. Abdoul yaakaar naa ne yomb naa euh, leeral. Mhm. ndax mooy boroom secret yi. secret nag du lenn lu dul muy xam-xamu asraar. xam-xamu asraar nag yàlla dafa dogal. mu doon xam-xam boom te nii da nga koy jàngi mm-hmm. comme ni ngay jàng yeneen xeeti xam-xam ni ma la ko mën a misaale ni ngay nekk école mm-hmm. ba ba war a ba ba ci yàgg ngay suivre médecin kii di suivre comptable kii di suivre nangam mm-hmm. maanaam nga génn école dem defi comptable wala nga dem defi secrétaire wala nga dem defi lii noonu la xam-xamu asraar mel ginnaaw boo jàngee ci daara ja noppi ma wàcc alxuraan ni nit di jóge dem jàngi xam-xamu diine yooyu nan nga mën a jóge dem jàngi xam-xamu asaraar mhm. pour man cee dimbali jaamu yàlla yi ndax li suñu borom ni wax am maamayen faxoon naas fayam ko sufil ardi mhm. ki ma gën a bëgg mooy kii taxaw sama jaam yi di leen dimbali nee dama koy yàggal wéral ko yokk ay xéewalam te mhm. ko xam ci secret loolu ku ko mus dimbali doomu aadama la doomu aadama yi joxut yàlla dina la jox loolu nag moo tax yàlla dogal xeet yi ni am te nii moom nga mën a maîtriser pour mën a doon euh, daraja ji nga xam te ni moom lañ la wooye muy saaxibul asraar mhm. am ay xeeti daraja la yoo xam ne benn moom a ko tuddee Mauritanie mhm. te loolu dañ lay saytu ba xam ne xeeti xam-xam asraar yëpp daje ci yow ñu la garaat boobu mhm. te xam yi da ci bokk muy xilmu nujum xilmu adat xilmu xuruuf ismullahi asam xilmu ramli yooyu day aajowoo nit ki yoo xam te yaa ngi yëngu ci ñaan nga xam yooyu ndax mooy tax nga mën a ñaanal ki mu gaaw gis ko ci nu mu gën a gaawee nu mu mm-hmm. gën a gaawee mm-hmm. moo tax boo dee dégg léeg-léeg nit naan xam-xam mu ñuul mu gën a gaaw alxuraan kooku dafa xamul lan mooy asraar mm-hmm. la dafa jàngul lan mooy asraar kooku kamaatara la rek comme te nii dafa dafa ñëw ci nit mu jox ay secret yom te nii moom ay fooy yom te nii bu ko fooy réeree dootul mën a ñaan mais ki xam-xam asraar nekk ci moom mu yori fooy ak mu yori yoo xam lépp ci yem day mën a dagg xaatim léegi sol ko faj lépp ci dënn bi lay nekk ak ci boppam. kon loolu moo tax jàng xam-xam asraar wóor. Mhm. moo tax boo déggee kon ne naan xam-xam bu ñu la gën a gaa rek xamul lan mooy alxuraan ndax yàlla moo ne woon noonu nazilu min alxuraani ma huwa shifa wàccal naa leen ci biir téere bi lu leen di saafara. wax lu leen di da nga koy jàngi ba xam lan mooy saafara ngir nga ñëw di ci dimbali doomu aadama yi. Mhm. wala tayit wala lillaahi asmaal xusna fad'uu bihaa am naa tur yu sell yow mu ngeen ma ci wooyee man yàlla. Mhm. ma wuy si leen. kon tur yooyu. Euh, boo ko xamee fi ngay jaar suñu borom ba mën ko cee woo yàlla da ci ciy wuyu nu mu gën a gaay waaye boo xamul yoon wi rek maanaam mooy waral nga jàpp ne lee gën a gaaw fekk lii gën a gaaw. Mhm. tey nag suñu waxtaan. Euh, foofa la ñuy yemale <laughs> kii bi la woon ne loolu mooy saayibul asaraar gi daal. pour dimbali askan bi. lu leen lu borom yi. Mhm. te danoo jàngi xam-xam asaraar ba peeg ko. Mhm. ñëw di ci dimbali. doomu aadama yi. Mhm. d'accord euh, naam itam da ko koo jàngi waaye am na loo xam da nga koo donn wala. waaw doon gi moom mënta ñàkk ndax loo fekkoon say maam di ko def. Mhm. nga ñëw di ko def loolu rek mooy doon. waaye nga am loo ci xamee loom say maam la bàyyi ko. Mhm. nga jël ko waaye doonul loom tas nii ñu bari dañuy gis nga xam-xam asaraar li ci gën a wóor doon ci say maam baax na waaye da gis léeg-léeg comme tas ni muy doxee day mel ni dañ ko fekk rek sol ko ko. waaye li gën a wóor ba wóor mooy loo doon doon say maam. jógal nga dem jàngi ko ndax xam-xam loolu boo déggee ñu naan diw mm-hmm. euh, kër gi mu yaroo daa doon xam-xam mm. wala loolu mooy mooy kër gi mu yaroo ju mu juddoo ay boroomi xam-xam a fa nekk nga xam te si mën na faa lu bari waaye su bëggee xam-xam dëgg nag day génn dem jàngi ko ñun nag doonte am na lu ñu doon ci seen maam mm. waaye li li faje aajo dëgg dëgg dëgg dëgg doon mm. jàngale ci réew yu bari Mauritanie fu nekk dem nañ fa mm-hmm. ngir gëstu xam-xam asaraar pour ñëw di ci dimbali doomu aadama. d'accord Chahibul Asral ki doon faj xam faj borom secret yi dañuy ñëw ci feebar yi nga xam ne dafa fréquent léegi sonal nit ñi ku nekk ngi jàmbat da ngay xëy gis nit ki mu mu muy wër rek di jàmbat naan lii moom ma dal lii moom ma dal surtout li nga xam ne moom la ñu seetlu jamono jiñ toll wàllu impuissance sexuelle maanaam tële sang bi lañ nga ñu ci mën a baaxee. waaw tële moom dama ci wax alhamdulilah ndax. wax dëgg yàlla li ma ci daan liggéey. commencé eh, daan jamono yi yëpp xam ni ci lay faral di liggéey muy sekere boo am nii wa sam si laa koy liggéeyee ñu koy booleeg ñàmbi. Mhm. nga xam te nii eh, am na beneen sekere boo am nii bii da koy naan suba gi bii nga naan ko ngoon gi benn bi wa sam la ak yeneen yi muy àndal. Mhm. waaw waaye eh, bu ñu la ko defaralee saafara soosu moom ngay jël. Mhm. comme ni ma la ko mën a misaale tey jii wasam si baa ngi nii bind naa ko pare. Mhm. lii ngay gis nii. bii moom nag moo koy baaxee si saafara la. Mhm. léegi nag bu dee ko nekk fii. Mhm. boo ñëwee dañ la koy jox. nga wut bi dagg ko juróom-ñaari dagg bis bu nekk nga jël benn xolli ko raxas ko ba mu set def ko ci lu mel ni baraada. wala lu mën a tege ci taal jël ci saafara si lu tolloog kaas ndékkukaay. def ko ci bàyyi ko mu togg ko fukki minute ak juróom nga bàyyi ba sa gémmiñ ñeme ko. nga lekk ko waaye saafara da ko doon toggee da nga koy tuur bu ëllëgee beneen saafara bu bees ngay jël. Mhm. ba mu mat juróom-ñaari fan. waaye bii par guddi nga koy def bi ngay def par bëccëg mooy ceeb bi nga gis ma jàkkaar loolu. Mhm. ceeb bi dafa am buñ ko adatee dañ koy boole ak ay yenn tur yàlla yom tas nii dañ koy adat. Mhm. boole kook moom yoo am ci ngóor la jëm. nga xam tas nii saafara si ngay gis. mooy ànd ak ceeb bi. mooy ànd ak ceeb bi bii fi mu toll nii bu ñu defar la ba pare. ah d'accord des ni daa am ko war a jël si. Mhm. moo tax waaye man mën naa la cee misaalal. Mhm. bu ko defee nga jël ñetti ceeb yii. Mhm. nga dugal ko ci biir. saa yoo xëyee. bala ngaa def dara nga naan ci lu tolloog kaas bala ngaa lekk dara. nga naan ci lu tolloog kaas su guddee nga def ñàmbi ji. d'accord loolu moom alburaax. yàlla dogal na. Eh, ñu ngi ci jaaral baram ñu ci bari. ñu ngi sant. gis nañ ci résultat ndax lépp ay tur yàlla lañ koy liggéeyee. Mm-hmm. te ceeb gi buñ ko adatee. Mm-hmm. am na tur yàlla yuñ ko dañ ko bëgg a dëxëñ waaye yuñ koy booleel. Mm-hmm. yoo xam te ni eh, dañuy adat turu kooku boole kooku ci lim bi. sikkar ko buñ ko sikkaree ba pare. bind xaate bi nga xam te nii moom mooy saafara si nga xam te nii. Mhm. mooy ànd ak ceeb bi. d'accord léegi nag bu dee ku nekkul bi nekkul fii nekk bitim réew. Mhm. enveloppe yi ngay gis. Mhm. fi mu yi a yi ngay gis commande jàmbur yi war a dem la. nga xam te nii boo xoolee ni ma ko mën a waxee mooy bii bii mooy ànd ak kii bi euh, ceeb bi. ceeb bi bii. mooy ànd ak. ñàmb ji. Mhm. ñaar yi moo ci nekk. d'accord comprendre nga. Mhm. léegi après dañ ciy dugal ceeb bi ci biir enveloppe bi. Mhm. bind numéro téléphone kooku ak adresse am mu dem. mu dem ndax ñàmbi moom am na fépp. ceeb nag mën na faa xaw a jafe. waaye ceeb moom day demaale. waaw ndax ceeb bi eh, mën naa jafe foofu waaye ñàmbi moom su accès. moom day day génne enveloppe dajj ko dina gis ceeb bi dina gis ñaar yi nga xam te nii bii mooy ànd ak ceeb bi bii mooy ànd ak ñàmbi ji mhm. bu ko defee mu wut ñàmbi foofu ñu wax ko ni mu koy defee mu daal ko wee def comme ni mu koy defee waaye kenn ko def juróom-ñaari fan te gisoo résultat sept jours lay duré sept jours pour nga jotaat sa maanaam yàlla dina ko kattan mhm. day yokk awra mhm. li gën a yéeme sa awra bu gàttee yaa ngi dégg da koy yokk day yokk awra waaw mais loolu beneen liggéey la ci boo xam te ni boo ko soxlaa mhm. dañ ko ciy dolli mhm. waaye bu dee ci yi nga xam te ni dañ koy liggéey moom kartan la yuy dolli mhm. ak sa ndox bu oyofee mu mu kiyal ko wala sa nga néew ndox wala sa kartan ni wala li nga jugal waaye sa kartan dafa desee dëgër wala doo jugal waaye ku koy naan juróom-ñaari fan insha allahu rabbi ah boo jàkkaarloog soxna si de xam naa ne moom. dina kontaan dina damay ragal kay mu ibbi néeg bi daal. alhamdulilah <laughs> waaw te loolu lépp ñu ngi ko liggéey ay turi yàlla. alhamdulilah te eh, turi yàlla yooyu. Mm-hmm. yaa xaadiru bokk na ci. Mm-hmm. yaa xawiyu bokk na ci. Mm-hmm. dama cee kii nag waaye am na secret yi nekk ci biir ay mbir yoo xamante ni. asraal moom lañ koy liggéeyee daal. waaye daal ci gàttal albaraax. mbirum góor a eh, looloo tax eh, liñ ciy liggéeyee du lenn lu secret boobu muy cepp bi ak ñàmb ji. te bu ci nekk am xaatim bi muy boo mu des nii da nga koy boole ñàmb ji di ko togg juróom-ñaari fan di ko lekk mm-hmm. bii nga boole ko cepp ji di ko naan chaque suba bala ngaa lekk dara mm-hmm. waaye kenn ko def juróom-ñaari fan te àndu kattan goom des nii diiru dund dootoo tële téeméeri soxna bu daganoon foo fanaan dinañ xam ne góor yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg fanaan na fi <laughs> waaw jërëjëf <laughs> sang bi jërëjëf ci leeral yi yéen ñi nga xam ne tubaarkàlla da ngeen a néew kattan Euh, mën ngeen seet ci sang bi dinaa fi bàyyi numéro bi incha allah rabbi bu ko defee mii euh, ngeen gis ko ci ba ci baar écran bi noonu dafa am sama benn xarit boo xam ne nii ba mu sëy ba léegi sang bi dafa yàgg lool waaye pour mu am doom. Hmm. dafa jafe lool looñ ci mën a baaxee. waaw loolu mooy eh, bari na luñ ciy liggéey. te hmm. bari na résultat yuñ ciy am. Hmm. mais loolu ku ko yàlla natoo ba ñu koy xool ba pare nag. ndax xamul lan moo ko waral. xamul lu waral loolu. te eh, faaw ñu xool ko ba xam lan moo waral. Mm-hmm. ñàkk am doom gi. Mm-hmm. ñu doog cee mën a liggéey waaye comme kii daal bari na ñoom te ñu ngi leen ciy saafara seen i mbir. Mm-hmm. waaye faaw ñu xool ko. ku mënul am jëkkër itam faaw nga xool ko ba pare. ñu xool ko ba xam lan moo ko téye am jëkkër. loolu nag faaw ñu xool ko mais bu dee yii daal ma jot a expliqué. te ma njëkkee ci ngóora bi. yooyu moom amul. Euh, amul xool euh, xool. li waral daal mooy ñi ngóora baa ngi nii bi ànd ñam bi ak bi ànd ceeb bi. waaye dañuy wax lim bi nga xam te si moom koy liggéey pour ku ma jot nga mhm. nekk Sénégal nga nekk bitim réew ci yem ku mu mënti doon lim boobu du ko ëpp du ko yées muy 65000 francs d'accord 65000 mhm. moom te damaa ah, fexe ba mën a jàppandi ci nit ñi ñëpp. ah waaw pour nga jotaat sa lii. <laughs> waaw maa may fil ardi. <laughs> waaye mhm. leer na yàlla. billaahi lazi laa ilaaha illaa xëy na sax waat gi mën naa ñàkk. waaye ñu ma ci jëflanteel ñu baree baree bari. bu ñu cent quatre gis nañ ci résultat. alhamdulilah te loolu moom sant yàlla rek la. sant yàlla waaye 65 millions yi di toll ak 100 moom ci boppam. du wàññeeku du yées boo ko waxee da nga nekk fii ci Sénégal. Mhm. maa ngi fii Almadies sama kër. nga mhm. ñëw jël ci ko. d'accord bu dee da ngaa nekk bitim réew. Mhm. soo waxee ñu defaral la ko ci enveloppe bind sa numéro téléphone sa euh, tur jox ko GP mu jox la ko boo ko jotee ñu wax la ni koy defee. kon ci gàttal bu dee wàllu côté ay wàllu borom kër am doom ak yooyu noonu dañ koy lim bi nii la loolu liggéey la ba teg. d'accord ñu ñëw ci ci traitement yi euh, hypertension looñ ci mën a baaxee moom itam. waaw bari na. Mhm. waaye tey dinaa ci jukki sax yenn ci yooyu nga xam te ci moo gën a sonal nit ñi. ayca moo gën a sonal nit ñi muy euh, hémorroïde. hémorroïde te daa am bu nëbb bu am bu feeñ itam. lii maanaam li tax ma jukki ci sax mooy fan yi damaa gis ñi mu koy jàmbat bari. Mhm. te bi ma ci liggéeyee gis naa ci ñu am ci résultat. Mhm. ba barki démboo Njaay rek comme ni mu ngi yegee yaraax mu ngi yaraax ak comme ni mu ngi euh, kayaar. Mm-hmm. ci tefes ga lay liggéey. su imari sonal ko sonal gom te si kenn mënu ko misaal. lii laa ko jox. Mm-hmm. sunguf bii dafa am tur. Mm-hmm. tur woowu dañ koy adat. buñ ko adatee dañ koy booleeg yaa daafewu. yaa daafewu te mooy firi jiñ. tur boole ko inna allaha yu daafewu anil lazina amanu bu ko defee def ci liñ ciy def. siimee ko ko. bàyyi ko ba mu xaw a fendi ñu def ko ci pot bi maanaam ku ko ku imorit jàpp mhm. ñu wax la ni nga koy defee billaahi boo ko defee da nga tàqalikoo bu génne beek bu dugg bee ci yam di nga tàqalikoo émorit mhm. ci àdduna insha allahu rabbi ndax yi yàlla lu mu mënut amul te turu yàlla lañ ko liggéeyee te émorit dafa sonal nit ñi ñuy liggéey wàllu toog nag lu ci bari ñoom mhm. lay faral di daaneel moom pot bii ma la wax pot bii doo ko ci weesu pot bii. fukki fan ak benn. Hmm. boo koy jëfandikoo boo nga gis résultat ci saasi. Hmm. muy bu génn bi moom bu dugg bi. Hmm. waaye pot bii juróom-ñaari junni la muy trente cinq mille. trente cinq mille du ko ëpp du ko yées. ci gàttal traitement bi yëpp du ay pot yi dee di nga tur yàlla. mën na leen moo gën a garaaw. wallaay moo gën a garaaw lool sax macha allah. wallaay gis nga lii. benn pot bii ngay gis nii. fukki fan ak benn nga koy jëfandikoo jëfandikoo boo gis résultat loolu ci boo gisu résultat nee ma sëñ bi delloo ma sama xaalis. delloo ma sama xaalis ndax turu yàlla bi ma koy liggéey dama ko wóolu. te am naa ci. Mhm. satisfaction bu wér ci nit ñi. Mhm. donte nag boo jëflante lu mot junniy nit. Mhm. junni yëpp xëy na a ci résultat. te loolu mooy réussite. kon nag émeute bi ci xeeti jàngoro yi nga wax noonu. naa ci jukki émeute nga mu gën a sonal nit ñi. teg ci ba pare it naa cee jukki ndoxum siti ndoxum siti waaw doxum siti bii dañ mhm. koy saafara mhm. moom it juróom-ñaari junne la trente cinq mille mhm. waaye moom it ñu ngi koy liggéeyee traitement bi waaw même yaa daa fi xam lañ koy liggéeyee waaye nag sunguf bi fala adat ya wuutee d'accord te it am na leneen lu ciy boole ci ay ayal alxuraan ci ndoxum siti bi pour mën koo liggéey la ba teg dag ñuy woo rek bu dee da ngaa nekk Dakar boo ñu tegale ko ci cag-cag nga jot ko wax la ni nga koy defee bu dee da ngaa nekk bitim réew ñu defal la ko ci enveloppe yónnee la ko par CP nga jot ko. Mm-hmm. waaye pot bii nga gis li muy ndaw ndaw nii nga koy gis nii bul ko xeeb. ndax tur yàlla yi làmb mu ëpp doole. Mm-hmm. moo garaaw lool li naan mbir mën naa oyof lool te diis lool ci biir. wallaay loolu moo nekk ci lii. Mm-hmm. ay tur yàlla laa koy liggéeyee. boo gisee nag ñu ñëw ci sungu fi tey. gëj naa cee def émission. waaye yàlla dafa dogal wa maa xalax na sama awal arda wa baynahuma baatila boo gisee waxtaan te ma jëmale ko ci lii mm-hmm. eh, waxu ñëw ma ci wàllu xam-xam asraar ak yooyu mooy lii dafa gis ni damaa gis ni jamono ji ñu koy jàmbat bari mm-hmm. te ma ci def defal gis nañ ci résultat te tur yàlla rek laa koy liggéeyee mm-hmm. te suñu borom moo ne wa maa xalax na sama wal arda wa maa baynahuma baatila bindu ma ci asamaan ak ci biir suuf lu amul benn njariñ lu ma bind rek am na njariñ kon garab yeeg xob yeeg yëpp bu ci nekk rek sun borom du ko bind bind ko pour muy keral wala muy nangam déedéet du ko bind waaye am na njëriñ lu làmbool nekk ci biir te njëriñ la nag pour nga xam ko faaw nga jàngi faaw nga jeex na man nag fuuta laa jàng lii ak daara jolof fu ne wax labgar <laughs> ca daara jolof labgar foofu laa jàng yenn yi ak bu dee fuuta mhm. barkee ji nammaréer ay lallaahu njum amul fu ma fa demul. ñibbi nga jolof waaw maanaam boobu kon. xam-xam ñoom Vélingara. <coughs> yéeme te eh, xam-xam yu doy waar la. yow daf nii da ngay def rek gis ci saasi am mm-hmm. résultat ci saasi. Mm-hmm, mm-hmm. kon dafa doon lom te nii sungu fii. ci nekk da nga koy mën a liggéey ay ci yàlla mën naa la cee jukkil benn wayen serkol laahu nasaran azizan bi ci alquran. boo ko alatee mu was wasuur su nga fa was wasuur ñooy tollu adak. doon loolu rek am na lu ñu ciy liggéey ci wàllu wërsëg pour ibbeeku. ah waaw ba tey ci da ngay gis ni ci ngóora sax da ngay liggéey yaa xaadiru boole koog Dakar. Mm-hmm. nit di ko def laax di ko lekk wàllu ngóora lay tàqale koog moom. kon sunguf yi ngay gis ni. Mm-hmm. bu ci nekk am na tur yàlla boo ci mën a liggéeyal bu ci nekk am na ay alxuraan boo ci mën a liggéeyal waaye dangay def jooni jooni la. da ngay def rek gis. gis kon nag euh, suñu alburaax xam naa ne foofu la ñuy yemale a <laughs> euh, yëf yi. Mhm. waaye daal ci gàttal muy prostate ak yenn feebar yi nga wax euh, ak ñoom ñëpp rek traitement de goitre ci nekk dañ ciy yëngu. Mhm. waaye dañuy jukki ci yenn yi rek. nga xam mhm. te ni fan yi moom la ñu ëpp lu ñuy jàmbat. muy émori ndoxum siti ak góor a wàllu tëlee maanaam ñi nga xam ne dañoo gaaw a daanu mën nañ ko tuddee noonu. wàllu impu mooy impuissance a daanu ndox mi oyof wala sa kàttan dina jóg day day dëgër. Mm-hmm. wala da ngaa bëgg sa kàttan gën a dolleeku. Mm-hmm. bu ñu la ko defee rek incha allahu rabbi sa diiru dund. Mm-hmm. dootoo tële te téeméeri soxna laax bu daganoon. alburaax dina foo fanaan. dina xam ne góor dëgg fanaan na fi. alhamdulilah wallaahi lazim. alhamdulilah kon nag <laughs> maa ngi maa ngi gis sa pegg itam lu doy waar. <laughs> ko tudd damay bàyyi rek nga wan ko internet yi ñu xam lan la sang bi. ah waaw waaw waaw waa lii alburaax. lii lu yéeme la. loo xamante si nii nag ci wërsëg lay dox. ci wërsëg wàllu ubbeeku la. Mhm. waaye damay bañ a wane garab ah waaye <laughs> doo ñu ci baaxee rek <laughs> man nga xam ne saa yu ma xëy wërsëg euh, wërsëg laay wër. <laughs> waaye daal lii moom ci kàttanu suñu borom. ndeysaan. ku yàlla dogal. Mhm. nga bëgg ubbeeku. nga bëgg ubbeeku. ubbeeku lool. Mhm. am loo yóotu jot ko. wala ngay lijjanti wàllu kayit amoo. saa sottiwul nga nekk bitim réew wala nga nekk Sénégal. wala nga bëgg liggéey te amoo ko. ngay xëccoo place itam wala ngay xëccoo place. Mhm. ak lu mu mënti doon. li mhm. gën a yee mooy su ma la boolee yoo xam ne yi nga koy booleel. Mhm. maam loo ca ñaan. loola ngay gis. incha allah loo ko ci gis. ci gàttal. jërëjëf sëñ Alburax. comme que nangu ñu ko woon <laughs> kay alhamdulilah. <laughs> léegi nag mënuñoo bi. te waxuñ ci li nga xam ne moo xew ci réew mi. dañ koy tënk rek ndax lu ñu bëri yenn ñi ngi leen di dal ñu ngi naan dañ leen a xaftal sang bi xaftal dafa am. am na naka lañ koy dindee moom. yomb na alxuraan rek. lépp ci alxuraan la. parce que bari na ñu ne xabtal ñoom te ni fii laa ko dindee sama kër almadi. Mhm. Mhm. d' accord yeneen secret yooyu ñu mën a wax itam. yu na bëgg yu feeñ. waaw xam naa dañ koy bàyyi foofu beneen yoon. <laughs> waaw ndax bëgguñu euh, kii bi xam nga rek ñu ngi may xaar. Mhm. ñu ngi may xaar. waaw dañ laa fekk nga nga nga xat lool wallaay wallaay tey ñu ngi may xaar waaye daal bu mhm. beneen yoon ak yi war a dem yi war a dem bitim réew bitim réew mu war a àggale seen liggéey pour mu dem ndax mhm. ah, GP bi daa war a xëy dem mhm. kon nag euh, dañ koy yéemale foofu rek alburaax alhamdulilah def jàmm ci réew mi amiin muccal ñu ci cat muccal ñu ci ndok yàggal fi suñu kilifa diine yi di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa بدأ فرضي شهري رمضاني